Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dé gan nga ci kër gi nak, bésal bouton abonnement bi teg bul faté activer wàlla cloche de notification bi dé ngir baña a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si et maintenant bon visionnage.

actualité yi fii rek lay xewee ci Sénégal 4 TV Adja lan mooy sommaire bi. alors dañ koy commencer ak euh, fin de saison bu maîtresse d'un homme marié amoon démb muy euh, série boo xamante ne Azu dañ ko topp lool ci réseaux sociaux surtout. maîtresse d'un homme marié fin saison wala boog fin deuxième saison bi. Hmm. loolu mooy xibaar bi nga xamante ne ni moom la ñu xëyee euh, fii ci biir Sénégal euh, mu nekk nag loo xamante ne ni neexul ñu bare bare bare ñi nga xam ne dañoo safoo boobu série di maîtresse d'un homme marié euh, maîtresse d'un homme marié ñu fàttali rek ñuy soog a ñëw fii ci Sénégal juróom na coow lu bari hein. ñi nga hmm. xamante ni ñoom ñu di waa ONG Jamra ak yu ni mel ci séquence yu njëkk yi peut-être que bu ñu déggee maîtresse d'un homme marié tur bi dafay xaw a choqué tuuti hmm. ñu ci doon ragal xëy na ay ay séquence yoo xamante ni dafay dafay vexé suñu population li ci am ak yu ni mel. Mhm. mais heureusement que ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor boobu les production di waa Marodi TV. Mhm. ils ont été à la hauteur. Mhm. Euh, parce que def nañu première saison mu jeex ñu indiwaat deuxième saison bi euh, vraiment déroulé ko ba mu nice te boobee ba léegi gisuñu benn coow dollee ko ci. mais li nga xamante ni innovation la te ñii di waa Marodi TV commencé di ko xewal ci seeni série mooy c'est la deuxième fois ñuy gis série ñu koy yemale ci trente trente deux épisodes ndax bu ngeen fàttalikoo bu baax a baax quatrième saison de Pot et Maréchou, c'était même la même chose. Mm -hmm. euh, nous avons eu 30 épisodes de Nous avons 32 épisodes de mm Donc, nous avons fait innovation de l'innovation pour voir Moro TV commencer à imposer sur les Sénégalais. Mm -hmm. Nous avons commencé à avoir l'habitude de faire 50 séries. L'affaire a commencé à durer des mm -hmm. Mais pas Moro Diop, Nenama, Hassan, je suis dit que nous avons eu

comme ni nga ko waxee woon tout à l'heure Azou dañuy jàll ci deuxième actualité. ci deuxième actualité ban la. ak benn waajoo xamante ne dafa xaru. Mhm. fële ca euh, forêt classée bu Tivaouane Peulh fa lañ ko fekk moom mhm. itamit mu faatu. Mhm. donc information boobu lañ leen indil avec euh, beaucoup de tristesse. noonu ni ñu ko waxee noonu rek la amee fële ca Tiwaawan Pël euh, démb bi ay dix-sept heures jotee maanaam juróomi waxtu euh, ci ngoon euh, dañu daal di dem ca côté forêt ba forêt ba bu ñu ko waxee mooy ci àll bi nga xamante ni moo nekkee foofee fekk fa nit koo xamante ni dafa pendre boppam pendre boppam bu ñu ko waxee maanaam jël buum takk ca sa baat daal di yeew ci garab gi noonee sax lañu daal di li nga xamante ne nii moo di image bi mm-hmm. malgré xëy na image yi kenn mënul wane kanam géeg mm-hmm. yu ni mel waaye bi ñu ko toppee ba toppaat ko gis nañ li ki nga xamante ne nii moom moom moom la ñu fekk mu faatu ñu ngi tudd Ibrahima Wade Ibrahima Wade ma nga dëkk ci diwaanu Kër Massar ay atam itam bu ñu koy xayma daanaka ci ay trente ak yu ni mel yooyu toll mhm. euh, ñi nga xamante ne nag ñoom la yàlla suñu borom ak boog ndaw yi wala boog suñu réew mhm. dénk wàll woowee muy waa service d'hygiène ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di les sapeurs euh, ñoo demoon jëli ji bu koor boobu ba fi mu mhm. toll nii pour xam dëggantaan njaay lan moo tuggee ci mbir moomu koor bi yóbbu nañ ko ci hôpital pour xool ba xam lan moo ciy tukkee Sista Eva

daanaka soixante dix la toll. ci biir jàkka ji fa la faatoo bi muy faatu kaamilu alquran bi mi ngi mu téyewaale ci loxoom mm-hmm. lan moo ko faat ci yenn anam la la faatoo loolee defe naa ne chapteur yi nga xamante ni ñoom ñoo jël boobu lekkoor yóbbu ko ci hôpital bi ñuy wax hôpital Sakhir Ndiéguène mm-hmm. hôpital Sakhir Ndiéguène mooy hôpital bi gën a mag ci biir Thiès mooy hôpital régional ba mm-hmm. ndax xëy na amoon na weneen tur boo xamante moom la tuddoon mais ci at yu ñu génn ay côté 2015 ci leen ko daal di tuddee ki nga xamante ni moo di Sakhir Ndiéguène a mag a mag foofee ci soixante-dix ans ma nga ci hôpital boobu ndax ku ne xam na ni jamonoy covid 19 la ñu nekk mm-hmm. képp koo xamante ni rek faatu ñu yóbbu la ci hôpital yi saytu boo xool ba xam coronavirus moo la rey am déet c'est ça ayca dañuy jàll ci artiste bu mag bi di Wally Seck ñu gis que ne jamono ji fini les frasques lañ titré mhm. Wally Seck s'engage dans l'environnement mel ni tam jamono yi dafa yëngu ci environnement bu baax. le golden boy de la musique sénégalaise de son vrai nom Wally Ballago Seck di ko gars yi di bàkkee. Mhm. ma ci gërëm bu baax a baax sama waajur di ji buub sa noonu la ko daan bàkkee. Mhm. daanaka moo tax sax tur woowu daal di law ci àdduna wargal kap Wally Ballago Seck dañ ko xamoon ci soirée yu fees yi xam ko ci son yu extraordinaire yi waaye fi mu toll nii mu mel ni daa ko commencé changer style ndax Wali, engagé carrément à 200% sama ma neexee wax loolu jëm ci wàllu environnement weekend bi ñu génn ma nga woon ci île Saloum fa préserve doon fa wane doon jëmmal itam li nga xamante ni suñu environnement ak itam naka lañ ko a naka lañ ko gars fa laaj. Mhm. combat. wala daa clip bu muy préparé bu bëgg bu mu bëgg mu surprise pour sénégalais Wally Ballago Seck kaay tontu bi Sénégal 4 TV sister <laughs> Eva. du ñak dina ci tontu mais c'est des gestes bo xamantene azu dañ koy saluer. Mhm. parce que porteur de voix la bu ko neexoon yem ci ay somb ak lu mu mën ci doon. Mhm. mais bu dee am message bo xamné ne mën na jàll ci ci sortie mi. Mhm. mën a jariñ askan wi mën a protéger sunu environnement dañ ko ciy jaajëfal bu baax. ñu jàll rek ci ki nga xamante ne mooy nit dof dafa génn ginnaaw bi euh, Moustapha Cissé Lo génnee ay audio di ci di wax wax yoo xamante ne tegginewul moom dafa génn nit dof di cracher ses vérités maanaam di wax dëgg ginnaaw histoire yooyu bi mu fi xewee. nit dof la 50 Cent du Sénégal noonu laa koy tuddee saa su nekk ndax daanaka style ba 50 Cent di imposé fële ci diwaanu États-Unis moom itam style bu nu mel lay imposé fii ci diwaanu Sénégal mm-hmm. nit Moustapha mhm. mais yàgg na lu mel ni xeme ni nga xam ni ñooy def politique te nekk fii ci biir Sénégal mhm. nee na alalu askan bi la ñuy sàcc alalu askan bi la ñuy jël def ko seenu moomeel te dara du leen ca fekk dem na bay jël exemple ci boo demee tey si tey ci banque yi gën a mag fii ci Sénégal ak sax banque yi gën a mag ci àdduna boo fa demee politiciens yi denc nañu fa ay milliards yi milliards yi milliards mu doog fa te moonte ne seenu askan ñi ngi dee ak xiif seenu askan ñi ngi feebar deme bañ a faju seenu askan ñi ngi am ay jafe-jafe waaye mu mel ni daal yi nga xam ne ñoom la ñu doyloo teg leen ci suñu bopp réew fullaalu askan wi faale wuñu askan wi mm-hmm. na nee na leen lu ngeen deful fii ëllëg bu ñu fa demee àtteeg suñu borom moo gën a leer sista Eva Lerna. Azou, on va terminer avec euh, le Sénégal face à l'épidémie de la malgouvernance. Mm -hmm. Après OFNAC, ARMP, mm -hmm. Cour des comptes wala IGE bi nga xamante ne moo génn altine bi Azou. Mhm. Euh, dañu gis que ne Sénégal pandémie bi ko gën sonal. Mhm. du coronavirus waaye mauvaise gestion wala mal gouvernance Là. la ma ca beex ci phrase ba mooy la gestion des maigres ressources mhm. publiques. donc defe naa ne yàgg nañ di ko wax fii ci Sénégal 4 TV yàgg nañ di ko wax feneen ak feneen. Euh, coronavirus dafa ñëw. nekk jàngoro. Mhm. mais li ci gën a garaaw ci biir Sénégal mooy nag jàngoro joo xam ni day ñëw di wunniwaat yeneen i jàngoro. Mhm. donc euh, daanaka li nga xamante ne nii mooy yoreen bu bon bi nu yoree fii ci biir réew mi nga xam ni moom la suñu gouvernement yeeg suñu autorités yi yoree suñu gestion wu dëkk. Mhm. de coronavirus bi bu ñëwee def ci génn ay fay yu baree baree baree baree baree. lu jiitu rapport OFNAC wala mu jiitu rapport IGE di génn. Euh, côté boo laal rek da gis ni. nekkite yoo lii kat yàgg nañ faa nëpp nëppal lii yàgg nañ di ko nës nësal hmm. donc bi corona bi ñëwee nag loolee lépp daf ko daal di feeñal hmm. bi ci gën a attirer attention wu nit ñi moo di côté finance bu ñu demee tey si tey ba dëkku Sénégal ñuy génne ay rapport rapportu quatre ñuy wax ni finance bokk na ci kuréel yi nga xamante ni ñoom gën a bëri njuuj njaaj ñoom ñoo gën a bëri ay ndëngate fii ci réewum Sénégal vraiment Sista Eva man xamatuma ci dara wax dëgg yàlla ndax nag finance moo yore lépp lépp lépp ci réew mhm. mu mel ni daal koppar yi fa ñu ko denc am na ci ñenn ñoo xam ne am nañu accès wu ñëw dànk yóbbu tibaat yóbbu dibaat yóbbu te dara du ci fekk sista Eva. muy réalité boo xamante ne sañuñ ko bañ a azo. Mhm. muy euh, ñàkku baadoo la dafay continuer di siimo euh, cere cere buur yi. Mhm. muy li ñuy déplorer comme ni ñu ko waxee woon démb rapport IG yi dina génne ay mbóot yu bari azo. Mhm. dinañ ko topp lépp loo xam ne ruuse na ci muy lu bees rek dinañ leen ko indil. lii la woon ci tonkum xibaar yi. waaw xam naa rek jox leen dig daje. demain incha allah. même heure même site internet. S4